dikkati naa mbaadu xalifa babacar sàll mii day mooy bir ma ba ca benn baat ba turbine yéene kaay daal di may xamal ne moom xalifa babacar sàll gars yi day ña koy xaar dëgg-dëgg ngir mu daal di yëy yàbbi nag ci coowal amnistie bi ndax neexul ba neexul waaye coow li nag coow ma yéene bi ne ma cell la def moom xaaf de def noppuk tëx boole ci tële wax ci saasi ba nii kenn xamul moom xalifa babacar sàll ndax dafa ànd ci ñu amnistie ko am déet Aliou Ndiaye ci l'observateur ne déet xalifa babacar sàll karim may sa wàdd ca yam ñoom ñaar ñëpp kenn déggu ni yónnee ay ndaw yu leen di waxal waaye ñoom ci boppam kenn xamagul seen position ci mbir mi turbine yéen kaay ma xalifa baaba Babacar Sall laaj ba mooy ndax daa ànd ci amnistie bi ngir nag la ñu ko jiiñoon ne dafa daal di détourné lu toll ci benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri million mu daal di effacé wu fayallaahu wala it meer bu Ndakaaru woon day daal di topp may sa wadd ci bëgg-bëggam ci ney buñ ko daal di amnistier Aliou Ndiaye ci l'observateur ne ma ni Khalifa Babacar Sall Karim Meïssa Wade pour ngeen dégg leen dina am jafe ndax ñoom ñaar ci boppam dañoo tàmbalee nag ruux opposition bi Aliou ne politique laa lay wax de lépp lu président Macky Sall def politique daf ci daal di laxasu waaye opposition bi lépp luñ defit politique daf ci daal di laxasu ñoom opposition bi ci boppam nësaroon nañ def ab projet de loi yóbbu ci assemblée nationale ngir ñu daal di amnistier Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall mi coow la Aliou Ndiaye ne lan moo ci jotale président Macky ba mu waaxu waa opposition bi njëkk leen ci boobu le projet de teg loowee dindi fi ne président ki Sall mi ngi déggante Khalifa Babacar Sall dina jafe waaye dindi fi ne président ki Sall it mi ngi déggoo ak Abdoulaye Wade dina jafe lool tribune yéene kaay ma moom Karim may sa ne dafa ne bu ñu ko amnistie mu bàyyi parti démocratique sénégalais laaj ba mooy moom Karim Meïssa Wade bu àndut ak parti démocratique sénégalais ku muy àndal laaj ba ñu ne woon béy bu àndut ak moroomu béyam ñu daal di koy cere ndax loolee dagan na ci Karim Meïssa Wade ndax nag du teg xel ngir bu bàyyee fii dem fekki président Macky Sall yéene kaay bi ne ba mu dooree ci politique ak tey moom Karim Meïssa Wade dafa mel ni nag politique am daal dafa yeewu rek daal di nelaw l'observateur daal di jox kàddu professeur Moussa Diaw mu daal di xam ne ni président Macky Sall day jëfam yii boo seetee ci ginnaaw politique dong moom moo ko lal ndax président Macky Sall nag bëgg na déstabiliser opposition bi bëgg na nag Sénégal ci boppam ñu joxaat ko bopp ak nopp waaye tam mi ngi làmbaatu ndax ci amnistie bu Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade mii moom président Macky Sall nag ci lay xoolee ndax 2024 mën naa neexal gaay yi ba jàll am déet Pape Modou Fall ci tribune yéene kaay ma ne la tëñëx wax gi ci boppam moom da koo jarul faaw projet bi nag daal di génn ngir ñu mën a xam dëgg-dëgg lan la ci président Macky Sall jublu tey nag Pape Ndeye su nekkee mën nañ leen ubbil geneen yoon goo xam ne daañu bokk ci élection moo gën te loolu yomb na nan dem ci code électoral ba daal di soppi article L57 bi daal di xamal sénégalais yépp nag ne soppi nañ article boobee su ko defee ci saa si gars yi ci boppam ñu mën a bokk ci élection l'observateur ne ma yeeweeg ci yam ñoom ñëpp nag tekki daal la ñu jël ak noppi gi le mandat yéen kaay dama Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall ma doon ñoom daal amnistie bu président Macky Sall bii daañ ci teey ndax nag mën naa nekk gato goo xam ne am na ndëgg sërëx gu ca nekk l'enquête quotidien daal di may xamal ne saa si tembi kay gaa yaa ngay manœuvrer lu ñu mën muy waa yeewi askan wi ndax nag amnistie bu Khalifa Babacar Sall mii bu doonu bëñ mën naa yanxal yeewi askan wi te nag laaj ba mooy ëllëgu Barthélémy Dias Déthié fay bu fonk sa kaddu daal di xam le ni ña xam ni daal am nañu ay ambition te nekk président 2024 xam le nañu ko réew mi quotidien ma terewul coalition beeg intercoalition bi daal mi ngi ci yoonu explosé de boobu Walf Quotidien daal di may xamal ne président Macky Sall day saa si moo ëpp problème ci réew mi ndax nag ay alliés ci boppam ñi ngi geer saa si tembe ngir xool nag kan mooy wuutu kan ci parti socialiste AFP wala it ci PIT laataa lool turbine yéen a kaay ne ma Babacar Gaye daal dinay bàyyi Omar Sarr daal dinay xamle moom baaba kër gay ne nañ ñuy doxalee boobu le parti daf caa àndul cëggal guyam lay dem daal di leen yekk keteme Vox Populi ne ma Abdoulaye Gallo Diawo yi daal dina yekk keteme Serigne Mbaye Thiam moom Abdoulaye Gallo Diawo ne Serigne Mbaye Thiam dafa trahir Amina Aminata Mbengue Ndiaye ndax saa si tembe nag dafa mel ni nag dafa jam paak ci digg ginnaaw Aminata Mbengue Ndiaye te waxtu woowu day Abdoulaye ne Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi wopp ba ñor nekk ci lalu hôpital direct news dama xeer yi dee ngi bàyyeekoo fu ne tël-tëli nag jëm ci Serigne Mbaye Thiam critique yéene kaay dama laaj ba mooy ndax parti socialiste ci boppam daañu amati candidat ngir 2024 ndax parti bi ci boppam saa si tembe mooy suux Sud Quotidien daal di may xamal ne en tout cas ca assemblée nationale opposition boppam moo a atte Mimi Touré ak Bokk Yaakaar ndaw lu neex règlement intérieur bu assemblée nationale moom dal buñ ci sukkandikoo Mimi Touré moom mënta ñàkk mandaam ña nga xam ne nag ànduñu ak président Macky Sall ña nga noppi di xaar wax jot ñu daal di ŋaang tribune yéen kaay di may xamal ni jamono jooju nag moom nguurug Sénégal day fanweeri milliards la daal di jël ngir daal di solal ndongo yi ngir ñu mën a dem jàngi waxtu woowu l'école baa ngi ni dungu l'école Sénégal ci boppam saa si tembe moo sàgganu waxtu wa nga xam ne ña ngay solal ay ndongoom le vrai journal ne ma buñ ci yokkee jafe-jafe yi nga xam ne l'école yi mi ngi koy am ci wubbite gi waaye tam jàngale jàngalekat yi daal dina ñuy tiital gouvernement gi ndax nag nee ñu gouvernement gi ne cocc njàng me ne cocc defuñu ko nag jafe-jafe daal di am ci njàng meeg njàngale mi laas yéeni kaay dama boobu ay consultation à domicile mi ngi am yoo xam ne mën naa fàdd ñii yéegal ñële magistrature bi saa si tembe moo nar a am mouvement yu doy waar ca cour suprême yéeni kaay bi ne ma président bi Cheikh Tidiane Koulibaly dafa dem retraite Serigne Bassirou Gueye ñu teg ko ngir mu war wuutu Assane Ndiaye asan mi nga xam ne ca OFNAC la jëm vox populi daal di may ne ngir gàmmuk Tiwaawoon gi day nguurug Sénégal ma ngi cay def lu am solo na nag ci paj ña nga xam ne ñooy ujaaji war a dem ci waawoon libération yéen kaay ma atti jari banque wax nañ ko nag mu fay fukki milliards ak benn bokkar sadix jéey laas ne ma daaneel bi ci man la kaay ma xamal la ni ab jumaa lan doon tabax foofee ca piir waaye nag coow la daal di jur noddukatug jumaa ja ci boppam appel la ko ay villageois jàppee jor ko ko joro joro jor ba maar day taali ak lu mën a am mbokk yi na nañu yendoog jàmm te di ñaan jàmm